te xale yi. mais waaw loolu yëngal li. waaw affaire rek. affaire yan. waaw affaire daa am ay yu si nekk quoi. daa am ay secret yu si waaw waaw waaw. waaw waaw waaw. tey bis bi lu mu laaj sa diggante kan euh, doomu jàmbur. doomu jàmbur. jàmbur nga laal. waaw. ma jàmbur du ci dugal loxo. non man doomu jàmbur la. doomu jàmbur nga laal. doomu jàmbur. ba jàmbur duñ dugal loxo. waaw ñun ñëpp ay doomu jàmbur lañu. moo tax doomu jàmbur jàmbur dugal ci loxo. noonu. tey lan la bi laaj. ak sa diggante kan. tey tey lamb ji xeex lay laaj wala bëre. lamb ji lu laaj rek daan ko def ndax ñun ay ndaw lañu bàyyee ko waalo Souleymane Diaw de suñu waajur man maay man maay Diaw di le missionnaire waaw. gis nañu. ah. 100 pour cent géejewaay tey géejewaay rek laa fi gis tamit. waaw mais c'est normal. am nañ fi trop lu waral lool géejawaay mooy xorom làmb ji loolu mooy problème bi. gis naa fi mbër yu bari ku ma laaj géejawaay la jógee. waaw ah, waaw c'est normal nag ndax. cent pour cent géejawaay ki nga bëre géejawaay la dëkk. xaw ma woon géejawaay tax loolu. Ah, xaw ma woon franchement kon cent pour cent géejawaay lay doon. fair play dañ dañ ni géejawaay doon bëree tey ñu gis ngay bëree mu dëkk géejawaay. non fair play rek incha allah. comme ñun si yar ak teggi la ñu xamee mosuñoo daraay mosuñoo wax loo xamee nag su dul noonu la kon lépp si yar ak teggi lañ ko teg. ñu gis sa grand sa mag sa lépp mu ne sa ginnaaw. waaw mu Youssou Ndour. Youssou sama grand la sama lépp la te papam moo ma dalal yal na ko yàlla yërëm te xarit àjjana. amiin amiin ak mbës moo ñuy yor si lépp nag ak sama rakay mbay jaw Mbaye Diaw waaw am na ñeneen ñi ñoo xamante ne ñu ngi si yoon bi di ñëw ñooy ñooy mbër jaajëf waaw bëgg kanam tuuti waaw incha allah waaw la ngeen nañ la ci loo nekk waaw sant nii rek waaw si jàmm waaw sant bu baax a baax ni nga sa déguisement bi dafa rafet waaw gis nga waaw dellu cosaan rek waaw di woon gars yi ni séeréer la tey cosaanu séeréer bi nga indi def nii ah waaw gis nga noonu la demee nag la bis waaw nànk nànk nànk nànk ndax li ma indi daa bari ñu li mu indi daa bëri te ñu bari dañoo topp sama ginnaaw def naa nga jël sama temps waaw loolu daal laaj combat bi xaar xeex. waaw lépp lu ko lépp lu indi rek dina ko fekk. waaw pare nañ si côté bépp ah. loo koy wax. waaw kii bu ko kii bu ko leeree ni am na combat rek muy jàmma ah. am na combat bu leer nañ nañ nañ te boo te si kanam tuuti dina xam ne am na combat. si kanam tuuti daal si digg géew bi dina metti dina neex. dina neex loolu sax bu bëggee bëre dinañ bëri bu bëggee xeex dinañ xeex. billaahi jaaja bu leen neex ngeen ñëw ma woon leen mbooloo. ñu de. 100% Guédiawaye bi ngeen di bëre seen biir tamit loolu. man Thiaroye laay représenté. Ah, Thiaroye ngay représenté. dafa rëy. école de lutte Jimbori lañ nekk Thiaroye gaar la ne. Thiaroye gaar la ne quoi. loolu moo tax man. ñu dem ñu xool mbooloo mi ndax booy waal nee na indi na fi lu garaaw de. ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu nekk seen présentation ndeysaan diggante Gorgine ak doomu jàmbur doomu jàmbur doomu jàmbur écrit Kawtine gërëm di lig Balla Gaye ñoo nekk ci digg géew bi diggante doomu daaw ndeysaan Diawdine nee na ko doomu jàmbur jàmbur ca la ndeysaan daa ngi leen di xool waaye kii pare na meekee paregul arbitre xool na leen ba pare waaye doomu jàmbur moo pareegul mi ngi sottee ko ay bitéelam ndeysaan ndeysaan doomu jàmbur ak jawdin jawdin moo ñu won ginnaaw doomu jàmbur lañ jàkkaarloo diggante doomu jàmbur ak jawdin ndeysaanam ndeysaan diggante doomu jàmbur ak Diawdine. Diawdine moo féetee nii. Diawdine moo doomu jàmbur lañ jàkkaarloo. Diawdine écurie Balla Gaye. wuy fe. doomu jàmbur. ndeysaan écurie Jumboor yi. doomu jàmbur ak ñu ngi nekk seeni bagages. Thione moom pare na bu yàgg mais doomu jàmbur ngi noonu di wax ak coach bi ndeysaan arbitre nee na ko la ñuy xaar ma ngay dem doomu jàmbur ak Thione Tine ndeysaan doomu jàmbur ak Thione Tine ndeysaan arbitre a ngi wax ak ñoom li laamu nangu ak lim na leen arbitre bi sur le mètre terrain wax na ak Zize mi nee nañ ko pare nañ am na pare nga mënu ko waaw arbitre bi soufflé na ndeysaan diggante doomu jàmbur ak jawlin deux xale yaa ngi noonu ci digg géew bi ndeysaan doomu jàmbur ak jawlin deux doomu jàmbur jawlin ngi noonu ci digg géew bi xale yaa ngi lewtoo dara xewagul doomu jàmbur ak jawlin samedi 19 février sëñ Modou Niang mooñ fi woo ndeysaan doomu jaambur jaw din doo ku nekk sànni na ko doomu jaambur lañ jàkkaarloo jaw din doo moo ñu woon ginnaaw ndeysaan doomu jaambur igiri caare jimboori jaw din doo école de lutte Balla Gaye ñoom Youssou Ndour ñoo ko indi doomu jaambur jaw din doo ndeysaan doomu jàmbur Jawlin 2 combat baa ngi ci digg géew bi ñi ngay weccante ku xale yaa ngi xeex doomu jàmbur Jawlin 2 doomu jàmbur lañ jàkkaarloo Jawlin 2 moo ñu wan ginnaaw ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu doomu jàmbur ikiri jumboori Jawlin 2 ga du Balla Gaye ndeysaan xale yaa noonu ci digg géew diggante doomu jàmbur ak jawdil dë doomu jàmbur ndeysaan xale yaa ngi noonu jawdil dë doomu jàmbur mi ngi xeex mais jawdin topp ko rek doomu jàmbur jawdin doomu jàmbur jawdin soq sànni na ko léegi waaye dalul ba tey xale yi ñu ngi si digg géew bi rek arbitre nee na leen ñëw leen ci digg géew bi nee na leen saako yi fekkewul kenn ndeysaan doomu jàmbur lañ jàkkaarloo moo nekk écurie Jimboor yi jaw din moo ñu wan ginnaaw écurie Balla Gaye ndeysaan doomu jàmbur ak jaw din deux ndeysaan nee na leen ñëw leen ci digg géew bi suuf la waat na ña nga ca doomu jàmbur Jawdin 2 ndeysaan doomu jàmbur Jawdin 2 xale yi ñoom ñaar daf mel ni consil lañ bëree ku ci neen nee na teg di déglu moroomam ndeysaan Jawdin 2 doomu jàmbur ba tey xale yaa ngi noonu jàppantey baaraam bàyyante ne léwtoo eh, songoon nañ xale yi songoon nañ ndeysaan doomu jàmbur remplacé na ko léegi ñu ngi bëree balante nañ ci kaw eh tàggoon nañ xale doomu jàmbur jawdi na ngi ko ay ay luy xew mu mbot la wala lan mbot la xatar bi eh luy xew dara xewagul ndeysaan doomu jàmbur daan na ko doomu jàmbur jël bu rëy la ko daan ndeysaan daan nañ Diawdine oh. doomu jàmbur dafa mën a mbot daa mën a bëre oh ndeysaan xale baa ngi noonu daan na ko jël bu rëy ndeysaan maas waxoon na ko nee na xale bu mën a bëre la moom doomu jàmbur ndeysaan daan na Diawdine daan na ko jël bu rëy ndeysaan Père Mbaye ndeysaan per mbaytin ñëw na mu ngi am lu ñu wax moom oh, ne ko làmb nii la ndeysaan jaw din jugal nga dem xale nga defar waatal ñëw oh, ndeysaan ndeysaan xale baa ngi noon di daw di dem moom waay nii billaahi bi nga bëre na doomu jàmm waaw waxoon naa ko sànq damaa mën a damaa mën a bëre damaa nekk si ginnaaw ñii ay booy waalo ay musique ay Pape Thiam sama grand bébé Saloum dañoo def ci man bëre. da ngaa mën a bëre mais li ak salaam toujours da dul tey. waaw mooy tey da ngaa ñëw dal. mooy comme li ñu wax rek man jàpp naa ne maa mun ñëpp loolu kese moo tax mais bu ma bëree jël sama temps kenn mënu ma. daanaan nga daan dootin. daanaan la moom ma ko laaj. ne ko doomu jàmbur ngay bëree mënu jàmbur ca la. wallaahi bi muy bëree kii bi may bëree sama deuxième combat arène moom moo bëree grand combat bi. yàlla xam na ko boobu bi muy bëreek bi muy bëreeg bi muy bëreeg boogaa la man maa doon boobu mooy sama deuxième combat dama koo xam dama koo suivre wallaahi la jim waa di ñaanal sama grand bi booy waalo dafa dafa war a bëri la wit le huit maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam bu sedd guy dafa sonn si man barki alxuraan maa ngi koy ñaanal bu baax a baax bii ñaanal doyul moo dàq xeex moo dàq bëri billaahi wallaahi yàlla baax na nag waaw di sant sama jëm waaw rek laa am fan nga jëm laa wax jëli bi nga rëy ma ne rek laa am luñ ma wax luñ ma ne foofu la rek la yabal luñ ma yabal rek foofu la grand combat bi laa suñ laa soxla grand combat bi soxla wala Ada Fass Jokkel ku daan bëgg naa Ada Fass sampal na ma nënd ñoom ñaar ku daan soxla naa ko